ñuy xaar ci man mooy su may ak su may am di jàmm ak ñu ma yéene ak ñoo xamante ne donte na sax supporter ñu Balla Gaye mais am nañ cofeel ci Balla Gaye que ni bu duggee stade wala bu joolee signature day neex donc mun ma nekk su ma liggéey rek di xaar yàlla may ma combat ma am ci ndam. nga yemaloon sa rak mu dem Maroc di waajal ama seen loolu soreetul looy wax ay supporteram. waa di daal xale ndax bu dee liggéey rek mooy may ndam. mu ngi ci ba na ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam moom it waaw. mais Balla sa combat laa déggoon bàyyi ma doo wax ci Siteu paire. sa diggante ak Siteu. man laa fi nekkal. parce que tey lii rek dafa neex. nga bëggal ci ay doomu aadama ay millions ñoom ci ay satisfaction. kooku lamb daal lu mu laaj rek mais dégg naa sa combat dégg naa combat ak Tafatine sa combat ak Tafatine dégg naa léegi mu taxaw. ay yaa ma ko wax de. dama koo dégg démb daa. yàlla baax na na. da ngay dem cosaan wala. yàlla baax na da ngay dem ah, na incha allah da ngay dem TFM. dinaa fa di wax. di leen supporter rek Sénégal yëpp di leen supporter ba tax na ñu ngi leen di ay ndami ndam bañ jël coupe ne senegal yëpp ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi doole di dooleel ñu ngi ñaanal waaw lépp lu ñu sumb rek ca Côte d'Ivoire yàlla may leen ko waaw. mais Balla du ma dem ba ñëw te laajuma la ci Modou Lo Modou Lo par rapport ak dernière sortem yi ak ni mu doxaleeg ñaar ñi mu bëreel muy Ama Boy Niang loolu ban gis-gis la ci Balla am. waaw làmb moo demee noonu yàlla moo dogaloon ne tey lii dafay am ci Modou Lo ak kereeram ak ñi mu mujjee bëreel. yàlla dogal na ko dañ ko koy nangul parce que am na sport moo demee noonu waaw. comportement am noo ko jàngatee. ci ban anam. maanaam par rapport ak fi mu toll ak ñaari xale mu boole leen daan leen ci benn moyen de deux mois. suñu borom moo ko kenn amul kenn mënul loolu suñu borom mooy ne tey Modou Lo day daan Ama Baldé day ku ah, yàlla jox nag da koy ñaanal yàlla rek. mais doo ko amul lan luñ koy wax lu wax dëgg yàlla daf nay preuve am wanewaat na làmb ci yeneen anam yu bëree bëri bëri waaw. jël na ma seen ama seen bëri ngeen fois ama seen di ndaanaan Sa Thiès jël ko ndax Sa Thiès gëm nga ne yow dana réussir boobu combat buñ ca yeggee incha allahu rabbi. Sa Thiès la xëy na dañ ko yéex a sax may sens moo tax fi mu gars yi àgg àggu ko combat la bu mu respecté ba tax na daal. ñu ngi koy ñaanal ndam kañ lay dem INSEPS. xamaguma maa ngi Dakar. sa supporters yi ñooy laaj kañ ngay dem INSEPS. leneen léegi rek bientôt incha allah waaw. yow ak Ama yaa ma ko wax Babacar yow jaaxal nga ma ne yaa ma ko wax de ñun yooyu yëpp xam